bisimillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin ki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim xayril mahdubi alayhim wala daalina amin ginnaaw gi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam man Lamine Cissé coordinateur liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyal suñuy waajur yi ñu dëddu di ñaan yàlla yàlla yokk leen leer ci àjjana kawe kawe dénk bii ñu ma ko dénk nag samay mag ak samay rak ñoo ko boole dénk ma mu diis lool ci man di sàkku nag ñu ñaanal ñu mu gën a woyof mbir mi nag li ko waral du lenn lu dul mag ñi nga xamante ne ñoo sanc gox bi doon ay mag ñoo xamante ne ay magu diina lañu magu lislaam lañu téye woon drapeau lislaam sellal ko rafetal ko lu war a toll juróom fukkeer ak juróom dëdduñu ñun ñu juddoo ci koñ bi màgge fi amuñu lenn lu leen fay lu dul bis bii nga xamante ne moom la ñu jàpp di bisu sedd bu tell boo xamante ne xalaat bi mu ngi jukkeekoo ci waa gox bi yëpp man maa ci gën a tuuti la comme li ma ko waxee rek man koñ bi féetewoo ma lu dul eskay di leen doxal di leen waxal ndax am naa ñeent ba juróom ñoo xamante ne juróomeelu tofa bi laa war a toll samay rakki tamit macha allah am na ñeent ñoo xamante ne maa leen yilif mais yàlla moo dogal ñu jël cër bi jox ma du lenn lu ñuy luñu luñ ci yëg lu dul eh, waxtaane yàlla waxtaane aqu dëkkandoo parce que mag ñi ci loolu lañ doon dox mbir mi tarixa raxu ko mbir mi politique raxu ko gox bi ñun lu may wax toujours rek ñun li ñuy tiitaroo ci àdduna mooy suñuy waajur ndax daan teraanga mën a weesoowul nga juddoo ci koñ màggee fi ba tey yàlla suñu borom jox la fi njaboot te mosoo dégg benn baat bu ñaaw si sa ñaari waajur kon mag ñooñu mënuñu leen defal lenn ci àdduna lu dul dajaloo di leen jàngal alxuraan di leen wàcceel di leen ko ñaanal xam nañ ne nag kenn ku nekk sa waajur yaa ngi ko koy defal sa biir kër waaye nag dañu am cosaan boo xamante ne ñun waa si région Xoob mu amuñu kër ñun dañ ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kër goo dugg lekk kër goo dugg naan kër goo dugg fanaan kër goo dugg yendu fa loolu la ñu mag ñi yaree leen daal la ñu xam ne ñun e, mag ñi bàyyi nañ ko mooy deretu gor la ñu am képp koo xamante ne leneen rax na ci yow loo xamante ne du jom liggéey jaamu yàlla jàpp nañ ne bëgguma sax xalaat lu ñaaw loolu amu fi ku ko fi mu a jéemit sottiwul ndax lan yërmande ji mag ñi amoon ci ñun teraanga ji ñu amoon ci ñun loolu moo waral bis bi Eh, di sant it ñi nga xamante ne ñoom laa ko àndal di samay rak bu ma tuddee ay tur ku mel ne ah, Ablaye Sall mi ngi nii sama wet ku mel ne Badara Kane mi ngi nii sama wet ku mel ne Saliou Sarr mi ngi ci ku mel ne Cheikh Cissé mi ngi ci ku mel ne Moussa Camara mi ngi ci ku mel ne Cheikh Mbacké Ndiaye mi ngi ci ku mel ne Saliou Ndiaye mi ngi ci ku mel ne Alé Ndiaye tamit mi ngi ci ñooñu ñoo ŋànk kuréelu liggéey bi te ñooñu tamit duñ ci lenn lu dul ay jëriñ lañ rek yoo xamante ne dañ leen moom la ñu tuddee eh, comité directeur téyal ko nag quartier bi amul lenn lu ñu fiy def nag te ñu ci waxtaan yëkkatee ndoo ko dugg ci ñi nga xamante ne ñooy délégué de quartier bi nga xamante ne mooy suñu kilifa ci wàllu administration ak imam yi nga xamante ne tam ñooy suñu kilifa ci wàllu diini bu loolu weesoo am nañu suñu yaay yoo xamante ne suñu borom mi ngi leen fi bàyyi di ñaan yàlla ñu yàggal leen fi ak suñuy baay ba ñuy sos bis bi dem nañ ci ñoom waxtaan nañ seeg ñoom sàkk nañ ci ñoom ñaan di ñaan yàlla nag lii ñuy dund di ko def di ko def ba suñuy sët di ko defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf waaw euh, deuxième première édition bi yàlla dafa def xalaat bi mi ngi jógee ci man mii euh, du loo xamante ne tamit dama ko toog di ko xalaat dama ko yàgg def damay bañ di lim mais yàlla suñu borom may ma musuma julli benn waxtu te limuma kilifa yi nga xamante ne ñoo si nekkoon kenn ku nekk ci sa tur lay jaar ak ci sa sant daan ko yëg nag suma biir xol di ko ñaan te muy gëm muy dëgg ci man adina di dox ba suma benn rak wàcc liggéey muy daan Yade yàlla na ko yàlla euh, xare ajana keroog ba ma jëlee parole ci biir bâche ba laa wax na kat taxawaay bii ñu taxaw Modou rafet na te nag am na ñoo xamante ne dañoo jiitu am na lu nekkoon sama xel ma koy xalaat saa su ne te maa ngi koy def yàlla mi ma tiim xam na ma yëg na ko tamit ne sama biir xol la nekk te li may wax ni lu ma gëm la loolu laa ko waxee ca biir baase ba ma ko waxee nag wax dëgg yàlla sama rakk jii di Badara Kane nga xam ne moo leen woo moom lañ jox warlu communication man ñu dajewaat une semaine après mu ne ma grand mu ne ma lan ma doon waxtaan ak yow de ca baas ba jot nañu concrétiser ko. yàlla suñu borom dogal ah moo waxtaan ceeg mii tamit mu dajeeg man Ablaye Sall moom it ne ma grand mu ne ah mu ne ma la nga waxoon sa biir baasu moo daan ba de jot na pour ñu ñu ñu fésal ko yàlla dogal eh, man leen kon nañ ci dox parce que mbir boo ci dox ci ci ci Sénégal fi mu toll. Eh, il faut nga am ci ñaar ba ñett bu ñu dëggoo rek loolu dañ ci jëm ci la ñu jéem yàlla dogal ñuy réunion di daje sama kër di ci waxtaan di comme ni ma la wax jaar fa ñu jaar ñu war a jaar yëpp imaam yeeg notable yi nekk ci quartier bi yëpp ñu waxtaan seek ñoom ñu jox ñu ndigal bi ñu joxee ndigal yàlla dogal biñ koy def di ko coordonné ba première édition bi bañ ne suba la sama sëriñ woo ma ca tool ya comme nit ñëpp ni ñuy joxee Sénégal kenn ku nekk am nga kilifa mais suñu ah, Sénégal dafa yàlla dafa dogal te yoon wi l'islam dafa am fu mu ŋànk waa kër Sëñ Tuubaa ngi fi waa kër El Hadj Malick ñi ngi fi waa kër Seydina Limaamu mi ngi fi mais ñun koñ bi li ñu tënk mooy lislaam ba ma sama sëriñ wooyee ma xam ne aduna lépp looy def danga koy bokk doomu aadama yi dama leen a nëbbatu bañ ne suba la ma woo sama rek ma bokkal ndey baay ne ko Cheikh boo xëyee suba nel gaa yi kat man damaa jot ndigal fanaani naa ca tool ya ñoom nañu eggale liggéey bi wax dëgg yàlla bi ma ñibbisee rëccuwuma lañ ko doon sose ndax koñ bi ku ma dajal rafetlu nga bis bi sant nga ci kontaan nga ci comme ni ma la waxee fii ci biir baas bi yàlla mi ma tiim maa fi gën a doon gone te ñii gënuma leen judd gënuma leen dara li ma lay wax la preuve mooy man sa xalaat bi si man la jógee mais li ëpp ci liggéey bi ñoom ñi ñoo ko yor man seen fekk coordonné bu baaxee ñun ñëpp la lépp lu ci am rëq-rëq lu ñuul mën a parce que wax naa leen adduna fi mu toll ñaar rek moo fi mën a boole ay doomu aadama na ma yàlla baal borom musóori ak alal kon lu alal ji ñun buñ ci jege lépp loo xamante ne teraanga bu fi ñëw nañ ko jël dellowaat ko ci bis bi duñ fi denc benn dërëm boo xamante ne day jëm déwén noonu lañ ko doxalee daaw dégg naa am nañ ci xéewal goo xamante ne takku na lool mais si sama ginnaaw ñoom dañoo jëlaat lépp jox ko jànkate alxuraan yi frais yiñ def macha allah laax yi rek lañ ci def te laax yi tamit wax dëgg yàlla ay bonne volonté yi nekk ci biir koñ bi comme ñun ni ma ko waxee Ablaye mii taxaw di suma rak rusuma ñëw ne ko awma loolu la dund ko amee dina la ko defal ci sutura ñu ci sutura lañ jër ak i jërëjëf non loolu suñu xalaat début bi dañ et dañ koy def mouvement ñaan la c'est apolitique non bi ñu ko tàmbalee ba léegi na wax dëgg yàlla jotaguñ ceeg waxtaan benn autorité à part suñu rakk ji nga xamante ne mi ci biir koñ bi yàlla jox ko ndomba tànk muy le ministre Bamba Kane waxtaan nañ ci ak moom te moom dafa jël garaatu ministre bi teg ko fële def ko jël jàppee ñu comme eh, dëkkandoo ci koñ bi doxee na ci wax dëgg yàlla mi ngi ciy def xéewalam keneen ku mel ne moom it ci biir koñ bi ay bonne volonté ñi ngi fi ay responsable ñi ngi fi

am na ay borom xam-xam am na ay borom bopp yoo xamante ne et social war nañ ci di mën a yëngu ak leneen ak leneen mais pour l'instant suñu waxalee yàlla rek te yàlla tax première édition bi nii rek la wàcce kaamil tasaaroo dem dootul sax am réunion ba affaire desaat un mois ñu doog ci taxawaat deuxième édition bi tamit noonu lañ ko tënkee mais nag xel du doy comme li nga wax nii question la et suñu borom bu ci namee lu lu a yaatu lii yàlla na ko yàlla suñu borom mote parce que ñun ñu ñor rek mooy gox bi daal Cité Diakhoumpa comme këru diine yëpp nu ñu nu ñu nu ñu màggee yàlla defal ñu bi mu mu egg foofu ci barke Seydina Muhammad bon li may tëjee mooy maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di santaat suñuy waajur yi nga xamante ne wax dëgg yàlla bi ñuy indi fii en 1968 boobu fii metti woon na lool courant amu fi ndox amu fi marché amu fi dara luy ñuru dara amu fi ay baraak lañ ñu sampaloon ci biir baraak yooyu sax mag ñi doon nañ ci wane solidarité solidarité mooy képp ku wàcce sa camion wàcce say barak di leen la taxaw ba nga samp sa barak daat say zing ñu dem ci loolu lañ ñu yar ci xoslu boobu suñuy papa yi di yeewu 4 heures di matin di dem Pikine di jël ay super di dem Dakar di wuti suñuy yaay di yeewu 4 heures du matin ñii di dem marché ñii di dugg ci tool yi ci loolu la ñu yare éducation de base boobu ba tey yàlla dogal koñ bi jur na ay ministre jur ay directeur de service jur na ay procureur lépp niveau boo yaakaar rek am ci biir secteur boobu te mais mag ñi ci ngor goog la ñu yor benn convocation mu su fee jógee ñun suñu biir waa ci di dem police bayal bi ñu def centre bi fii la mag ñi daan doo koy pencoo képp ku ci am problème dañ lay woo jaar ci digg bi bu fekkee sa njaboota tooñ ñu ne yow sa njaboota tooñ jégal nga baalu boo baaloo bu amee blessure mag ñi ne la yow mii sa doom gaañ jëlal doomu kii nga dem faji ñun ci loolu la ñu

li fi mag ñi bàyyi woon lii rek moo koy prouver di sant di ñaanal yàlla ñi nga xamante ne ñoo téye drapeau bi aussi yàlla may ñu wér ak gudd fan ba fi mag ñi yóbbu woon quartier bi ñu yóbbu ko fu ko raw foofu jërëjëf di leen sant yéen ñi nga xamante ne tamit yéen a ñëw ci waa Guédiawaye info di leen ñaanal affaire bi dem ba nekk télévision internationale yàlla mën na yàlla yàlla si barkal si Sëriñ Tuubaa ak lañ fa jërë jëf